salaamaaleykum wa rahmatullah kon école yii nii mën nañoo dugg si mooy fathul mannaan taysirul asir mahadu duruus al ak mahadu daar isalaam waaw waaw incha allah wér nga koy kii fii ayo nañu nañu taxawee ayo noonu la maa ngi tudd Mouhamed Ndiaye al ismu waxaata tur al ismu Mouhamed Ndiaye Mouhamed Ndiaye naam ki ci topp waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu maa ngi tudd maam Cheikh di jàngee tokkoor ba en classe de maa ngi tudd Abdoulaye Xanin di jàngee école daara tey sur ansi bi bismillah tur boo ci mënee jaaraat Abdoulaye Xanin Abdul Hakim Abdul Ahad Niang alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ana Mouhamed Bachir Dramé fi ma'hadi Dar es Salaam fi safi rabi al i'dadi waaleykum salaam wala minor here Paklaman Kokori. Wow. Trois bi mooy euh, kii waaw kanati juróom naa ko jàll jàll

kon asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, dañuy tàmbalee ci soal bu njëkk bi di ko laaj Fathul Mannaan soal bu njëkk bi dafay laaj Mouhamed Ndiaye dañ lay laaj donne le participe du verbe mourir mor mor ñu déglu mor mor mor naam al ijaaba saxiixa tokkoor ba maam Cheikh Diop quel est le genre grammatical de pétale pétale Hein? Comment on l'écrit Quel est le genre grammatical Nous Le genre grammatical, le pédale. P. P. Accent aigu. Ah, ah. T. Ah. Ah. L. Voilà, les tontu sama question nak quel est le genre grammatical C'est un nom Hein Non. Genre. aywa nee na non sax comme loolu ñu tontu nañ jàpp ci loolu. non féminin. la ku ko xam. masculin. taysirul asir. taysirul asir. yow dañ lay laaj. quel est le genre grammatical de feuillage. feuillage. masculin masculin al ijaba sahiha Mahad Dar es Salaam à partir de ces lettres manger verbe manger trouve un verbe de six lettres verbe manger ci lettres yooyu nga créé ci ab verbe boo xam ne de six lettres lay nekk manger mën na kaa ëpp ah? Ah? ci arab mën na kaa ëpp laa six lettres de lañ mooy ndigal li waaw am ndigal moom du ëpp du yées manger ah ayo ah? ah, euh, euh, ñu xool keneen ah ranger ah manger ménager ménager ko ëpp ayo mañe mañe boo ko indi woon am M am A am G am N am E am R ayo ñu del siwaat ci fathul mannaan sa ñaareelu laaj ma i'raabu kalimati maalan fi qawlihi ta'ala ana aksaru minka maala ma i'raabu maalan tamyiz malfuuz mansub bil fatha naam al ijaaba sahiha aywa معها الدروس الإسلامية ما إعراب نيو نيو كي تودي ما إعراب عبسا في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا ما إعراب عبسا في هذه الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا ngay inraabal ñu abasan maf'ul mutlaq maf'ul mutlaq mutlaq ah, ah, ah bu dee naam waaye ma dem fii ila yamin naam ah est-ce que xaal la ah, est naam maf'ulun li ajlihi lil abas taysirul asir ma i'raabu xaaifan fi qawlihi taala fa xaraja minha xaaifan yataraqab i'raabu xaaifan xaal xaal mansuubun bil fatha xaalun mansuubun bil fatha ayo ma haddari salaam ma i'raabu dakkan fi qawlihi taala kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka ma i'rabu dakkan huna dakkan i'rabuhu mooy maf'ul mutlaq aw al masdar mhm. ah mal ijaaba saxiixa shukran aywa day mel ne eh, li ci desaat mooy al as'ila at tanafusiya gis ngeen nii ñi leen jiitu woon léegi li doon def mooy suñu laaja laaj bi ku njëkk a yëkkati loxo yow yaay tontu soo yëkkatee nag laata soal bi daanu tamit da ngay tontu kon na ngeen bàyyi bu soal bi daanu nga door a sa loxo ayo sëñ sëñ Fall jaahisun léegi laaj bi ab cax la innana la arbaatu ixwaan walana rasun waaxid ñun ñeenti mbokk lañ ñeenti frère lañ waaye ñu bokk benn bopp loolu lan la innana la arbaatu ixwaan walana rasun waaxid naam mahad daari salaam loolu ke nekkut ah al umamul muttahida al umamul muttahida eh, anta si sori nga de est doo xaw a jege si waat tuuti ba keneen ci ñeenti ñett ci des aya bu ñu ko xamul ñu jàll ci euh, laaj ci jumhur bi ah. ah ah seize waaw mën na ko nangul seize table lépp naam al ijaaba saxiixa parce que ñeenti tànk la ñu bu am benn bopp aywa soal bi ci toppaat ñu dégluwaat man allazi man allazi kashafa ad-dawra ad-damawiyya as-sughra li ñu tuddee dawra damawiya suxra xam ngeen ne dafa am dawra damawiya kubra dawra damawiya suxra kii iktisaaf la doo ko wax si olof walla waaw dawra damawiya mooy li ñuy wax circulation circulation sanguine dafa am boo xam ne circulation pulmonaire la ak circulation boo xam ne duñ euh, koy waxeeti circulation beneen bu mag léegi ñun nag pulmonaire bii lañ lay laaj kan moo aha jagri jagri jagri hmm? de jagrin jagrin ah jagrin jagrin de xanaa ayo euh, euh, buñ naan xarfe ah kan xarfe Herbert aywa Haris ibnu Kulda ibnu Nafis ibnu Nafis moom moo iktishaf ak dawra damawiyya sughra léegi suwaalu bi ci topp maa hiya shurutu tarassul intixaabaat riaasiyya fi Sénégal boo bëggee ne candidat yi ci élection Sénégal yan mooy charte kan la borom lu bulali ay mahad Dar es Salaam bokk na ci surudi am deux nationalité bokk na ci ba tey mhm. waroo am lu ëpp benn soxna mhm. <laughs> bàyyi leen jàmbur alhamdulilah ayo waaw bàyyi leen bàyyi leen mu continuer yéen incha allah déglu leen rek aywa sëñ bi aywa bokk na ci suróor yi tamit waaw il faut bala ngay mën a nekk président nga am loo mos yor ci état nga am nga mos a dara ci état waaw ayo baax na léegi ayo sëñ bi ci des ku nationalité kese ngay am muy nationalité sénégalais yi waaw bi si toppaat mooy nga dégg langue français nga mën koo làkk normalement mhm. yooyu la la aywa ki topp bokk na ci sart yi nga am nationalité sénégalaise waaw bi topp mooy nga am am mooy lépp quarante ans ah bi ci topp. waaw. ginnaaw boo amee nationalité sénégalaise. Hmm. da ngay mën wax français. Hmm. nga am lu ëpp ci ay at. Hmm. na joxal waaw. ba noppi dégg langue français mën koo bind man ko lire. Mhm. am lu ma trente cinq. Mhm. des na de xanaa. ayo léegi moom tudd. waaw kon moom euh, benn des na benn kon dana am nisfu daraja. nee na da ngay am nationalité sénégalaise kese da ngay mën a làkk officiel bi te mooy français nga mën ko bind mën koo wax. da nga am lu mu yées fanweeri at ak juróom ban moo des ah waaw bala ngaa dem parrainage loolu ah ah waaw bul am lu ëpp soixante quinze ans bul am lu ëpp juróom-ñaar fukk ak juróom alhamdulilah ak euh, banaat waaw waaw waaw mooy sa casier judiciaire yi tamit mu doon boo xam ne set na ba amatul leen lu ñu lay aywa bi ñaari soxna bi mu ko ci sama xel dem ci imaam ma xaw ko yërëm waaye heureusement loolu bokku ci soal bi ci des mooy waxidan min allazayni tazawaja xadijata muy aha الأول هو أبو ah mm-hmm. kii ayo kon al uh, ijaaba saxiix mooy ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon sayyidatuna Xadija laata muy ñëw ci yonente bi abu haalata ak atiq al ayo bi des ñu déglu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 ayo waxal ki ma ko jàppale mooy sëñ abul baraka sëñ abul baraka naam jaaba saxiixal naam sëñ naam ayo ñu déglu bi ci desaat manil mutahaddis fi haadihi sawtiya kii kii waxe ngeen déglu ko ba xam eh, Size sesleniyorum. siz yeniden bir hilal kan la aywa maha daari salaam Barack Obama Barack Obama Barack Obama moom daan faral di wax ay aha aywa maître Abdoulaye Wade président Wade joxal keneen wal jooja njaay wal jooja njaay ah wal jooja njaay mücadelesi mi estirmek istiyorsun? Ayo, sayın sayın teknisyen. Böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki vur vur vur öldü. Ha. Kan la. Abdou Diouf waaw ah ah ah, ah, ah. ah? naam al ijaaba sahiha naam Erdogan naam ah ijaaba ñaari ijaaba kon léegi ñu ak euh, darajaat yi kan mooy ñan ñooy jàll ak ñan ñooy toog aywa kon euh, Mahadu Fathil Mannan Mouhamed Ndiaye moo jiitu am na 35 points Abdoul Ahad Ñing Taysirul Asir ak Mouhamadul Bachir Darame ku ci ne am na 20 kon su ko defee maam Cheikh Diop euh, mahaduratul islamiya moom mooy euh, moom mooy toog su ko defee ñu ko ñaanal ko tawfiq bi beneen yoon incha allah kon Mouhamad Ndiaye am nga am nga fi ñett bu neexee nga tànn ci benn am nga fi science am nga taarix am nga kitaabaatu Cheikh al Xadim yaay bu la neex nag taarix taarix aywa soal bi ñu déglu tuuti ila man tunsabu dawlatul umawiya a dawlatul umawiya tunsabu ila man kan lañ koy askanale Muawiya ibn Abi Sufyan ah Muawiya ibn Abi ah, man tunsabu naam Umayya Umayya bin Umayya ibn Abdi Shams soal soal bi ci Qu'est-ce que le commerce transsaharien Qu'est-ce commerce transsaharien bu ñu waxee commerce transsaharien lan la ci jublu Mouhamad c'est le, commerce que faisaient les Arabes et les Berbères à, travers le piste de, de naam al ijaba sahiha mooy le hmm. Hmm. bi des quel titre quel titre porte le souverain de l'Égypte ñi daa falu Égypte ban titre lañ doon ban laqab lañ doon am les pharaons les ayo kam adadu kam adadu xukkaami dawlatil abbasiya dawla abbasiya ginnaaw dawla umayya moo fi moo moo ñu si al ijaaba saxiix abdoulahat ñing yow kon am fi kitaabaatu cheikh al xadim am science da ngay science ayo ah, ñu déglu ko soal bi day wax bu bi quelle est la couleur du métal chauffé à cent à mille degrés quelle est la couleur du métal chauffé à mille degrés ab maadan boo darajatu xaraaratu egg na mille degré ban couleur lay am rouge ah? ah la couleur rouge couleur rouge ah, ah. daa mel ne beneen lay doon de bi ah, ah? noir ba du ngeen couleur yi ah ah couleur jaune jaune euh, euh, aywa sa deuxième question muy laaj quelle quantité de sang doit-on avoir en moyenne dans le corps d'un adulte ci wàllu nit nit koo xam ne mag la waxambaane du xale mu àddalu kimiyaat damihi ñaata la war a doon ñaata la war a am ci deret 5 litres ah naam al-ijaaba sahiha ayo soal bi ci comment calcule le périmètre du cercle le périmètre du cercle mooy koy calculer rayon multiplié par rayon multiplié par rayon fois rayon fois pi. Alors, dans quelle ainsi provient l'Élysée du maritime? Dans quelle ainsi provient l'Élysée maritime? Hein? non non dana dana dana deux royaume fois trois cent huit kon aywa

tontu bi ah, ah aywa sëñ bi la mère aha ah. aywa ñu fàttali ne soal bi nga tontu woon ci euh, ci mathématique bi périmètre de cercle daa mel da parce que da nga ne deux da nga ne rayon fois rayon fois trois virgule quatorze mais deux fois rayon rayon fois fois pi loolu a nekk ah ñu ngi ah, lay jég ñu ngi jégalu bu baax a baax ay yow moom kitaabaat Cheikhul Xadim nga am mata allafa Cheikhul Xadim mata allafa Cheikhul Xadim kitaabu Masaalikul Jinaan fi ay sanata ألف وتسع سنة a وتسعمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وثلاثين loolu loolu xanaa da 1930 loolu daa mel fépp fi sëñ bi sax de aywa 1884 1884 ku ñu njëkkante waxtu yi ay na ñu dégluwaat أين ألف الشيخ القديم كتاب منور الصدور أين ألف الشيخ القديم كتاب منور الصدور ألف الشيخ القديم كتاب منور الصدور في جربل في جربل آه في موريتانيا ما إجابة صحيح ما هي القصيدة التي يسميها كبار المريدين لك توبة alqasida allati yusammiha kibaarul muridina làkk tuuba làkk tuuba wala làkk tuuba xasida boobu la xasida sëñ bi la fii kay lu ñu fi wax rek ñu ah matlabul fawzayni matlabul fawzayni ما هي القصيدة التي فعل الشيخ الخديم في حقها man hafizaha la yasaluhul malakaani am na xasida boo xam ne sëñ bi nee na ku ko mokkal munkar ak nakiir duñ la laaj ci bàmmeel alkitaab wa tasawuru sixaar ah tasawuru sixaar eh. ah jaawart jaawaat sëriñ bi wax na ci mujjug tasawudu sixaar soo paree da ngay ñëw ci lañ na bi rek après ah wax na ko am na ko jaawaat sixaar am na ci ayo kon euh, jeex na su ko defee alxakam ay kon day mel ne euh, mahad daari salaam day daal dem noppalu su ko defee ñu continuer ak euh, fathul mannaan ak euh, taysirul asir su ko defee Mouhamed Ndiaye am na 30 points Abdoul Ahad am 10 points léegi yéen kenn tamit dana am ñaari laaja اي محمد جاي ما الجهاز الذي تقاس به سرعه الرياح سرعه الرياح mooy gaawaayu ngelaw li am na appareil bu ñu ci ñett yi ma lay bëgg a wax anémomètre ak héliomètre ban la mal jihaz allazi tuqaasu bi suratu riyah anémomètre clinomètre ak héliomètre clinomètre ah, ah? clinomètre déggu mu baax que ah anémomètre ah. anémomètre mooy aljawaab saxiix euh, sëñ Abdul Ahad masmul jihaaz allazi yustaxdamu li al irtifaa jaas bi nga xam ne moom la ci ñett yi ma lay bëgg ak voltomètre ma waxaat al mimal ak voltomètre voltomètre waaw mooy altomètre al ijaaba Euh, Muhammad li Cheikh al Xadim wala boog li Cheikh Mouhamadul Moustapha shaqiq wa axun lil um Cheikh Mouhamadul Moustapha am na shaqiq mooy ko xam ne ñoo bokk ñaari waajur ak ko xam ne axun lil um léegi ñoor ñoo ñaan kenn ku ne kan kan shaqiq bi kan la axun li um bi kan la ku ah, ah, bismillah. axul axul lil walidayn. Ah, ah shaqiq bi waaw. Serigne Baara. Serigne Baara naam. li ummi bi. ah. soxna Fatou. soxna. boobu de xanaa ah. ah. aha al ijaba sahih Cheikh Mokhtar Dieng saxiix mooy Cheikh Mouhamadul Amin Baar déedéet déedéet baaxul ayo Abdoul Ahad yow itamit laaj bi la daanaka laaj bi la waaye ci Cheikh Mouhamadul al axu shaqiq li Cheikh Mouhamadul Fadil ak al axu li um li Cheikh Mouhamadul Fadil ayo shaqiq bi kan la li um bi kan shaqiqa ah shaqiqa shaqiqa maanaam la maanaam anam ban nga wax ah lan ah? dan nga wax dama ne Cheikh Fadil am na ku jigéen koo xam ne ñoo bokk lépp ak ku góor koo xam ne waajuru jigéen rek lañ bokk bu fekkee ku jigéen mhm. soxna Mariama bu fekkee ci mbokkal Muhammadul ah aywa Serigne Afia Niang aywa ma dellusiwaat taamul urs maanaam ak ciet ñoom ñu fay ñu nu ko arab bi wax taamul ursi ciet ah fay togg ñam woowu nu tudd bernde yañ fay def bil arabiya bernde الأرز أرز أرز آه الوليمة الوليمة أيوه يويتا ينم لاج عبد الأحد aha saxe parce que walima fii bu walima rek ñu bëri da ngay gis sax ci ab walima wala ashabu walima waaye walima du du céet gi ci boppam waaye mooy ñam wañ fay togg ah ayo ah, ah, tamit ñam wa ñuy togg ca ngénte li moom tamit nu mu tudd bil arabia taamul mawlud fi yawmi saabiq taamul mawlud fi yawmi saabiq aha lam aarif ah. ah lam aarif jotoo ko xam waaw sëñ ah. ah al aqiqa al aqiqa bil ayn ay ñu ñëw asila tanafus yi su ko defee ku jëkk rek mooy tontu ayo ma aksarul anasir al mawjuda fi shams xam yu ko composé ay ay gaz ak ay ah naam. hydrogène hydrogène mooy bi ci ëpp alijaaba saxiix ayu raisin ayu raisin ifriqiyin atwalu baqaan fi lxukmi xaaliyan jamono yi ñuy wax nii président africain bi fi gën a yàgg ci nguur aha Paul Biya bu Cameroun 81 la fi nekkoon ba léegi 81 ba 2024 ñu bëri ñu nekk ci salle bi tey 81 fekku leen <laughs> yaakaar naa waa fii sax bëri na fi ayo fi ay iqlimin nasami fi ay iqlimin yujadu muqataatu Saraya département Saraya ah ban région la nekk département Saraya Kolda déet joxal joxal sëñ boobu ki ci Saraya ah. Ziguinchor Ziguinchor aha région Fouta moom amagul sëñ bi ah. ayo maasa yasjudul musalli isa bayna ziyadati wa nuqsaan ها محمد قبل السلام ها يسجد قبل السلام xool leen xool leen écran bi ngeen wax ki ngeen gis suura bi kan la technicien bi ñu déglu kon sawtu sawtu sawtu am na asila ixtiyaat yi xaaral asila ixtiyaat asire ayo déglu leen manil mutahaddis Thomasen Sène Amakodou Diouf docteur Massamba Gueye professeur Lamane Mbaye Saliou Mbaye Mbaye Thiam madame Diarra le général Mansour Seck Penda Mbow Mor Ndaw euh, Mamadou Yudi Sall Ah? ah si Moussa Diop Kopp ah. ah joxal joxal sëñ Abdoulaye ba xam aha ah. ku ko xam naam ah déggu mu baax de professeur Iba Thiam am na ku tontu woon léegi seen suwaal bi ngeen teewlee ñu remplacé leen ko bii nii kayfa al ismul waaqiu baada kul jami kila kilta aha tawkid maanawi ah ah tur xam ne daa ñëw ginnaaw moo ginnaaw kul kila aw kilta aywa Abdul Ahad tawkid tawkid loolu la sëñ wax di waaw mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi kon day mel ni asila yi kon ñoom ñaar dañoo tolloo ci ay point kenn ku ne am na vingt aywa léegi déglu leen suwaal bii nii rek alhamdulilah awalu man farada at tajnid al ijbaari wallazi kaana waaliyan fi l iraq fi l ahdi al moom moo njëkk def li ñu tuddee service militaire obligatoire nekkoon na waayli ci Iraq loolu mu nga nekkoon ci jamonoy dawla umawiyya ko kan la aywa Muhammad huwa xar ku la xam ah xar ku la xam ah ah ah ah Hajjaaj ibn Yuusuf as-Saqafi ay su'aal bi man al-qaa'il lawlaa anna al-mawta ataanii la jaaltu kulla duwali européya islamiya aywa Napoléon Bonaparte ah Napoléon Bonaparte Napoléon Bonaparte ah déggoo wax ji de Ahmad Ahmad ah Salahuddin al Ayyubi Salahuddin al Ayyubi moo waxoon ayo ku njëkk yëkkati kam ramadanan saamahum nabi sallallahu alayhi wa sallam ah. Muhammad yonent bi ñaata koor la woor fukk ak benn ah parce ah, ah, que loolu duñ ci waxtaan naam Abdul Ahad fukk ak ñaar ah, ah? tisan ramadan même ci France yi amoon fi amoon naa fi benn benn kii. jëlee ci jëlee ci laaj yi nga bàyyi waaw waaw. waaw man bu nekkoon nii bi am bi yaakaar naa yéen a ko jëfoo participe passé du verbe plaire. Eh, eh, mbokk ñoo leen di ñaan ngeen toog daanaka benn laaj rek moo def te ñu leen di ñaan boo leen dee génn ngeen jaari ci bunt ñëpp mais ngeen toog dar rek ba mu jeex te boo leen dee génn ngeen jaari bunt bee bi féete nii Saalum léegi beneen ci laaj participe passé verbe bi nii verbe plaire ku njëkk Muhammad ayo participe passé verbe plaire plaire e. ah, ah? plaire ah joxal sëñ bi verbe ba ah, ah? music. music. oustaz seetal bu kon yow ah. ah, moom gaaw leen ngeen tontu ko su mu kii aaxiru man tawallal xilaafata min abnaa'i Cheikh Ibrahima Fall ay Abdou Lahad Serigne Abdou Sakoor Fall Serigne Abdou Sakoor Fall naam al ijaaba saxiix kon foofu la asila yi di yem ba beneen yoon incha allah waaw salaamaaleykum ku fi gis téléphone bu wadd rek su ko defee mu ci taabal ab téléphone boo xam daa wadd boromam ala